rafetlu ànd beeg Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dalee nag ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek ak woppu coronavirus tey ci talaata bi ci 1457 personnes yi nga xam ne rek test yi nga xam ne jot nañ ko réalisé 153 ñoo ci jot a positif ci 153 yooyu nag am ci 47 cas contact 106 cas communautaire 3 décès ak 218 yoo xam ne rek daal dinañu wër. di avocat yi fanaanoo aw tiis ginnaaw ba seen jegeñaale bi doddoo rek kii di xaasi mu ture daal na génn àdduna rek démb ci guddi li ko faat nag di accident vasculaire cérébral ñu gën ko xam rek ci AVC ki di maître Khassimou Touré nag dinañ ko denc rek tey jii fële ca Touba mu nekkoon nag koo xam ne ràññeeku na trop ci liggéey bi nga xam ne rek liggéey bi nga xam ne rek daan na ko def ci noonu nag bokkoon na ci avocat yi nga xam ne rek dañ doon defendre ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ba négocier woon sax li nga xam ne rek moo di grâce grâce présidentielle bi nga xam ne rek amoon na ko Aminata Lo Dieng di ex ministre rek ci jamono ya Wade moom ak rakam boobu rek ñu jàppoon nag daal dinañ def rek seen guddi bu njëkk ca kaso bi ginnaaw nag bi ñu leen waree àtte tey rek ci talaata bi kii di Aminata Lo Dieng nag ñu ngi ko jàppoon rek arjuma bi passé gendarmerie bu Ouakam ñu koy toppee li nga xam ne rek moo di violence du couvre-feu usurpation de fonction ak outrage à agent ñu daal di dem ak yéen rek fële ca Grand Dakar lu doy waar nag moo fi xew ab benn xale bu jigéen rek lañ fa daal di kidnappé ñi def bile ñaawteef nag nekk ñett sénégalais ak benn congolais ginnaaw nag bañ koo kidnappé rek xale bu jigéen bi daal nañ ko violé rek plusieurs fois lu tolloog une semaine. ci noonu nag yemuñ ci ndaxte dañ ko doon jaayloo li nga xam ne rek moo di drogue ba pare nag di ko ko tuxloo ñi def bile ñaawteef nag police bu Grand Yoff rek daal di nañu teg ci ñoom loxo. tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV ñu daal di dem ak yéen fële rek ca diwaanu Thiès la fa xew nag di lu doy waar ginnaaw nag ba ñaari xale yu góor rek doon amal foofu aw course Jakarta ci noonu nag. ñu daal di def accident boo xam ne rek dañoo daal di daje ak kaar bi ñu daje ak kaar bi nag chute bi métti na métti boo xam ne rek dañ cee daal di ñàkk seen bakkan ci saa si ñetteeli nit ki nga xam ne nag bokkoon na rek ci boobule course rek ba fi ñuy wax ak yéen nii mi ngi dans le coma ñu daal di dama yéen fële ci université Cheikh Anta Diop bu dakaar ki nga xam ne nag moo di Amsatou di Sidibé nekkoon professeur de droit ak euh, recteur bi nga xam ne rek euh, moo nekk fële ci université bu Ziguinchor daal dinañ la génnee rek ci logement ba nga xam ne rek euh, fa la ñu nekkoon li waral bi lee mbir nag moo di depuis bañ quitté rek boobu université dañoo lànk ne rek duñ génn ci logement yooyu nga xam ne rek joxoon nañ leen ko dogal bi nag mi ngi jógee rek ci direction des domaines universitaires ñi leen fa war a wutu nag di ki nga xam ne rek moo di professeur Moussa Seydi ak euh, Oumy jër ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy daal di yem ak yéen rek ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah.